bis bi nga xam ne cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des mourides moom la santaane ngir ñu jàng ci alquranul karim xasida ak ay zikrullah muy altine ji dëppoog le 25 juillet 2022 ci biir réew mi ak ca bitim réew fii ci Touba Mbacké ñu koy waajal bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Serigne bu waajal lu takku ci ay bernde yoo xam ne doo ko fas yéene jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci bis bi. mu yëkkati lu toll ci junni biteelu ndox ak ñaar ak juróom fukki carton yi canette ñëw jébbal ko ki nga xam ne moom moo di Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou mi nga xam ne moo jiite ëllu xasida ndaw yi nga xam ne Serigne Mboup ñoom la yebaloon ñu indil ko Serigne bi ñu ko ko jébbalee sant na bu baax a baax Serigne Mboup ci jëf ji waaye fas yéene ko ko dugalal ci bisub xasida yi nga xam ne daañu ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi loolee moom moo tax sëriñ setu Mbàkke moom sëriñ bu yabalaat leen ñu yóbbu li nga xam ne moom moo di ndox mi ak boisson bi fii ci daara Hizbut ya ñu jëbal ko sëriñ Youssou jóob ñu déchargé ko ci bërëb yi nga xam ne fi la ñuy denc lépp loo xam ne moom moo jëm ci bis bi bi ñu agsee ci daara ji tànk yi déchargé nañ mboolem ndox meeg boisson bi nga xam ne dara tax koo jóg lu dul bisub xasida gi